xalaatu askan wi Ndeye nga am na kenn ku ci wax ne li tax Sénégal métti tu es avec moi ou tu es contre moi. mais encore une fois ñu fàttali ni unanimité kenn mënu ko am ci kaw suuf yàlla suñu borom dafa am doole. am kattan léeg mu tiim jaam ñi gis ci ñenn ñoo xam ne nii dañu dëng lool mu waroon koo corriger ci saa si te du ko def léeg-léeg gis koo xam te ne yàlla moo ko sàkk mu taxaw wax lu ko neex yàlla suñu borom te yàlla suñu borom day bàyyi mu sedd sagam kooku ñu sàkk ñun ñëpp moo mën a bàyyi mu sedd waxuma la koo xamante ne ni yow nee nga yaa jiite réew mi yaa jabootee ñëpp tu dois être o dessus de la mêlée dañuy faral di wax aussi tamit boo jekkoo da ngay baale même tu tey ñu ñoom dañoo jekku des médias encore une fois nday xaddi lii lan lañ ci am comme intérêt dama waaru de damay laaj nag lan moo xew. Ah, intérêt gi mën naa doon li ñuy bañ mu feeñ muy li muy feeñ alaaji. léegi mais jékkuwuñu kenn. fii ko amoon nguur gi continuer sax dàkk ak yow jékkuwoo kenn. waxi waxin la waxin la dama ni même tey ñoom bu ñu nekkoon sax tey ci position de force boobu. Uh-huh. bu fekkoon ni dañoo jékki bu fekkoon ni sax ma dama ne Ablaye Wade. bi muy fallu ba bi muy folleeku xale bu juddu woon major. 2000 mm-hmm. ba 2012. président Macky Sall 2012 2021 juróom-ñeenti at la dafa gum. yàggu ko fi. Euh, te ñu ngi naan dina dina dina dem troisième mandat du ko dem ak lu mën di am fukki at ak ñaar lay def. moom itam comme Abdoulaye Wade ak lu man di am euh, bu fekkente ni bokk. lu mënti am mënul romb fukki at ak ñaar fukki at ak mm-hmm. mais kon kenn amul doole joo mën a mititale kenn. Mm-hmm. cest à que sénégalais africain foog ñuy xalaate xalaat bu ànd ak nité ak nité maanaam kii na def li muy def. Mm-hmm. mais du sama ennemi donte bokkuma moom xalaat. kii na doxale ni muy doxale gis nga média àdduna yàqu na ba média ñuy ut média bu féeteeg pouvoir pouvoir ba àdduna doon baax ku nekk ci nguur da ngay nekk milliardaire bu ubbi sa ay média ñu lay liggéeyal bu ñu la satisfaire baax na euh, euh, xam naa nag Macky Sall bon président Macky Sall vraiment dafa yàgg bëgg média nag ndeysaan moo fi créé woon seen info euh, après ak yi fi jaaraat mais mais wun lay ñun duñu ay noonam dëgg la duñu ay ennemeem dañuy liggéey ci njabootam lañ bokk eh, ah dañuy liggéey léegi nag xëy na Euh, média yi mu créé woon utul ay ponkali journaliste mais juddu xew chance la moom bi muy daaneel bi muy daaneel Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade ko ëppoon doole ëppoon ko alal nekkoon président de la république. waaw dafa am bu ni groupe des médias bu taxawoon. aussi taxawoon. Mhm. moom itam fook ñu nangu ci ñu ànd ak moom ni juddu saf jamono ja nga tolloo loolu yàlla la ñun propagande nu ñu dañuy wax exactement li xew di jooyal askan wi euh, du ñu ay noonam encore une fois waaye nag. kii jënd kii jënd seen yi waa jooju daas ay milliards ba teg bëgg koo jënd bu ko jëndee itam du tax mu mel ni seen TV. Mhm. parce que bu boobaa ñu ñaari micro la ñuy teg ak benn ordinateur ak benn kamera di ko cartonné. cin bokkul safin. bokkul safin Dakar Dakar du Dubaay yi. Mhm. <laughs> Dakar du Dubaay Fatou Abdou. waaw ñaari kàddu yi ma ciy wax moom mooy euh, entreprise kenn du ko muucu te kenn du ko nërmel ndax dafa bokk ci li delloo démocratie ginnaaw groupe de presse nag dañu koy jàppale mais kenn du ko affaiblir. Mhm. Hmm. am na solo kon loolu moo nekkoon xalaatu askan wi di jaajëfal bu baax ndey di ndaw ci commentaire yi ni ki noonu El Hadj Mamadou Mansour Diop waaye tam Fatou du Ndiaye di jaajëfal yéen askan wi toogoon boobu ba léegi di ñu suivre di leen jaajëfal di leen dig daje ci yeneen jotaayu xibaar. xalaatu askan wi ndey di meen am na kenn ku ci wax ne li tax Sénégal métti tu avec mois ou tu contre mois mais encore une fois ñu fàttali ni unanimité kenn mënu ko am ci kaw suuf yàlla suñu borom dafa am doole. am kattan léeg mu tiim jaam yi gis ci ñenn ñoo xam ne nii dañu dëng lool mu waroon koo corriger ci saa si te du ko def léeg-léeg gis koo xam te ne yàlla moo ko sàkk mu taxaw wax lu ko neex yàlla suñu borom te yàlla suñu borom day bàyyi mu sedd sa sagam kooku ñu sàkk ñun ñëpp moo mën a bàyyi mu sedd waxuma la koo xamante ne ni yow nee nga yaa jiite réew mi yaa jabootee ñëpp tu dois etre au-dessus de la mêlée dañuy faral di wax aussi tamit boo jekkoo da ngay baale même tu tey ñu ñoom dañoo jekku des médias encore une fois nday xaddi lii lan lañ ci am comme intérêt dama waaru de damay laaj nag lan moo xew. ah intérêt gi mën naa doon li ñuy bañ mu feeñ muy li muy feeñ alaaji. résumé jékkuwuñu kenn fii amul nguur gi continuer sax dàkk ak yow jékkuwoo kenn. waxi waxin la. waxin la dama ni même tey ñoom bu ñu nekkoon sax tey ci position de force boobu. Uh-huh. bu fekkoon ni dañoo jékku bu fekkoon ni sax ma dama ne Ablaye Wade. bi muy fallu ba bi muy xale bu juddu woon major. 2000 uh-huh. ba 2012. président Macky Sall 2012 2021 juróom-ñeenti at la defagum yàggu ko fi euh, te ñu ngi naan dina dina dina dem troisième mandat du ko dem ak lu mën di am fukki at ak ñaar lay def moom itam comme Abdoulaye Wade ak lu mën di am euh, bu fekkente ni bokk. lu mënti am mënul romb fukki at ak ñaar mënul romb fukki at ak ñaar. Mhm. mais kon kenn amul doole joo mën a mititale kenn. c'est-à-dire que sénégalais africain foog ñuy xalaate. xalaat bu ànd ak nite ak nite maanaam kii na def li muy def mais du sama ennemi donte bokku maa moom xalaat kii na doxale ni muy doxale gis nga média àdduna yàqu na ba média ñuy ut média bu féeteeg pouvoir pouvoir ba àdduna doon baax ku nekk ci nguur da ngay nekk milliardaire bu ubbi sa ay média ñu lay liggéeyal bu ñu la satisfaire baax na euh, euh, xam naa nag Macky Sall bon président Macky vraiment dafa yàgg bëgg média nag ndeysaan moo fi créé woon seen info euh, après ak yi fi jaaraat mais mais wun laay ñun du ñu ay noonam dëgg la du ñu ay ennemeem dañuy liggéey ci njabootam lañ bokk ah dañuy liggéey léegi nag xëy na euh, média yi mu créé woon utoon ay ponkale journaliste mais juddu xew chance la moom bi muy daaneel bi muy daaneel Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade ko ëppoon doole ëppoon ko alal nekkoon président de la république. waaye dafa am presse bu meloon ni groupe des médias bu taxawoon. aussi bu mhm. moom itam foog ñu nangu ci ñu ànd ak moom ni juddu saf jamono ja nga tolloo loolu yàlla la ñun propagande nu ñu dañuy wax exactement li xew di jooyal askan wi euh, du ñu ay noonam encore une fois waaye nag kii jënd kii jënd seen TV waa jooju daas ay milliards ba teg bëgg koo jënd <laughs> bu ko jëndee tam du tax mu mel ni seen TV. Mhm. parce que bu boobaa ñun ñaari micro la ñuy teg ak benn ordinateur benn caméra. di ko cartonné. cin bokkul safin. cin bokkul safin Dakar Dakar du Dubaay yi. Dakar du Dubaay waaw ñaari kàddu yi ma ciy wax moom mooy euh, entreprise kenn du ko muucu te kenn du ko nërmel ndax dafa bokk ci li delloo démocratie ginnaaw groupe de presse nag danu koy jàppale mais kenn du ko affaiblir. Hmm. Hmm. am na solo kon loolu moo nekkoon xalaatu askan wi di jaajëfal bu baax ndey di meen daw ci commentaire yi ni ki noonu El Hadj Mamadou Mansour Diop waaye itam Fatou Abdou di jaajëfal yéen askan wi toogoon boobu ba léegi di ñu suivre di leen jaajëfal di leen dig daje ci yeneen jotaayu xibaar. askan wi ndey di am na kenn ku ci wax ne li tax Sénégal métti tu avec mois ou tu contre mois hmm. mais encore une fois ñu fàttali ni unanimité kenn mënu ko am ci kaw suuf yàlla suñu boroom dafa am doole. am kattan léeg mu tiim jaam yi gis ci ñenn ñoo xam ne nii dañu dëng lool mu waroon koo corriger ci saa si te du ko def léeg-léeg gis koo xam te ne yàlla moo ko sàkk mu taxaw wax lu ko neex yàlla suñu borom te yàlla suñu borom day bàyyi mu sedd sa sagam kooku ñu sàkk ñun ñëpp moo mën a bàyyi mu sedd waxuma la koo xamante ne ni yow nee nga yaa jiite réew mi yaa jabootee ñëpp tu dois être au dessus de la mêlée dañuy faral di wax aussi tamit boo jekkoo da ngay baale même tu tey ñoom dañoo jekku des médias encore une fois nday xaddi lii lan lañ ci am comme intérêt dama waaru de damay laaj nag lan moo xew. ah intérêt gi mën naa doon li ñuy bañ mu feeñ muy li muy feeñ alaaji. Ndeye jékkuwuñu kenn fii amul nguur gi continuer sax dàkk ak yow jékkuwoo kenn. waxi waxin la.